AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV wa huwa arrahmanu wa huwa arrahimu qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allati bihi lana al huda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawalil wali laqil lisaani wahlulan minhu al uqad wa shalhu dhakiran wa shakiran abad wajxal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida antal la si allamta luqmaan al xikam fa li yahab bil mustafa xayra chiam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji at bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu ak jëpp daara ji jot xikma bi fas yéene dikk ak ci seen xikmatul yawmi bi leen baaxoo andil bis bu nekk ci kattanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiixam seen mbokk Saliou Sy leen ko defal Euh, ñu ngi leen di joxe xikma bi fii ci daaray Hikmatul Yawmi ci Thiès euh, cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 712 44 71 tey ñu fas leen yéene andil bu amati solo tukkee sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul te mooy wéyale li nu tàmbali woon fan yi muy diggante sëriñ si ak taalibe yi te Serigne Touba yeete ci ba tàyyi sëriñ tubaa mas naa woo sëriñ Muxtaar Bintaloo ne ko Muxtaar mbaa boo ma leen wanee gannaaw du ngeen jaamu ay xeram mu ne ko mbakke kenn du la xam di jaamu ay xeram mu ne ko Muxtaar mbaa ba ma leen wanee gannaaw du ngeen jaamu ay xeram mu ne ko Mbàkke kenn du la xam di jaamu ay mu ne ko Muxtaar mbaa ba ma leen wanee gannaaw du ngeen jaamu ay xeram mu ne ko Mbàkke kenn du la xam di jaamu ay xeram mu ne ko Muxtaar xam nga luy jaamuy xerema ah? mu ne ko ba ma xam ba ma ko xamee di jël Mbàkke mu ne ko mooy ëllëg ngeen gis kuy wuyoo sama sant wala muy daraja woo sama daraja ngeen gis ko tàggoo ki dal ak mbaxana yëkkati la ngeen yor jox ko ko te kooka tegut tànkam ci mu sax yi nekkut ci li ma nekk na leen wóor ne bu boobaa yéen a ngi jaamuy xiram te ëllëg yowmal am day e, kuy jaamu xiram yaag xiram ba fa leen e, sun borom jëme mooy safaan ba yàlla na ci yàlla musal Sëriñ Tuubaa mas naa woolu seex yi yor mbooloo ñëpp bañ dajee mënu leen damaa bëgg ngeen xam ne taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci tooli xare taalibe yi ay sàmm rekk ngeen ci ñoom ab sàmm nag bu xëyee danañ ko bindal ñaari raa muy buum réer ak buum ruur ku ci fexe ba sag caawoo réeruñu ruuruñu ëllëg yowmal xiyaam ci santante rekk ngeen di mujj loolu mooy fa kullu soxbatin li wajhillaahi axiruhu alhamdulillaahi daal ne ku ci sàggan nag ba sag caaw réer baa ñu ruur ëllëg yowmal xiyaam ci jàppante téere baat ngeen di mujj wal xiyaasu billaah kon Sëriñ Tuubaa mi ngi doon nii masuta ndax kenn masuta réeral kenn mas naa fiiriloo it kenn ci mag ñi benn bayit ci muwaayibu muy sëriñ Malick Basin si ne ko firil ma lakaru joo yi jumoo yi bi xeyri joxi wala xotaa sëriñ Malick Basin firi ci ndigalu sëriñ bi ci eh, firim kaw bi loxo al arabiya sëriñ Tuubaa ne ko niru na ko de waaye jubluwuma ci loolu ne ko danga naan lakk fi yow rek yàlla rujoo yi la ak jofal si sama maa jumoo yi ànd ki gàtt sama bi xayri jooxi ci ludul xiif mbaa lompañ wala yi ngir man dama moyul dama moyul nag mooy fa jur gay fore euh, man faa lekk man faa naan kon Sëriñ Tuubaa euh, caaw gi ko suñ borom di sàmmloo te mooy euh, ñun taalibe yi te mu koy sàmbal suñu borom di ko sàmbal yonent bi sallallahu alayhi moom fexe na ba képp koo xam ne nii jaar nga fam awlu doo réer te doo ruur moo tax sëriñ Moussa Ka ci woyam yu neex ya euh, ma nga naa ko euh, bamba rafet ak caawo sëriñ mu ànd ak saara yenn caawo ndaw jaxasoo bamba rafet ak caawo kon sëñ Tuubaa ak caawoom rafet na lool kon nag yàlla nañu yàlla musal ci ñi nga xam ne nii kat dañuy wut mbooloo tey tuddoo sëriñ bi te ku leen topp ñu réeral la mbaa ñu ruural la yàlla ñu suñ borom musal ci ñoom te mbooloo amul benn njariñ li am solo mooy kenn ku nekk li ngay jëf sa diggante ak sa borom ak pës ak wala pësseef bi dox sa diggante ak Sëriñ Tuubaa ndax xeeti phénomène yi mbooloo yi bu fekkoon ne lu kii sax dafa dem ba dafa sàppi soof ba suñ toll nii li am njariñ te am solo mooy kenn ku nekk rek boo wéetee nga xam yow ci loo ne looloo am solo wala Cheikh Mouhamadou Moustapha waxoon ne wër di wuti xamee nekk ci luñ xam moo ko gën kon kenn ku nekk fexee la nekk ci lu luñ xam lu ñu xam nag yomb naa xam mooy ak njub mooy siraatal mustaqim mooy loo xam ne nii boo ca nekkee ah, sa xel mi nga xam ne nii moo lay yedd ci naka su noonu dana dal dana tranquille ba du la yedd yàlla nañu suñu borom xiir ci lu baax ñoo ngi soññaat mbokki julli yëpp ak mbokki taalibe yëpp